alors sama yaay yi naa <laughs> ngi si. ñu ngi lay fay. Mhm. ngeen wax ñu un peu si série Vautours bi da ngeen ci bokk wala. waaw dañ ci bokk comme actrice. Mhm. xamee nañ ne si yeneen série yi lan ngeen gisee Vautours bi Sénégalais lan nañu mën a xaar macha allah série bu am doole la série bu am maanaa na ko Sénégalais yi xaar incha allah day toj. seen interprétation si yeneen série yi jeu bi nice na macha allah ban doon Euh, ñun ñoo nekkoon bàjjen yi macha allah ñu nekk ay artistes comédiennes bokk ak cos banlieue bu Pikine kon ñun suñ demee si plateau waruñu ñu waruñu ñu xeeb dañuy li ñu def li ñuy def loolu la ñuy def parce que dañu xam ci liggéey ñun fowuñu dañuy liggéey. Mhm. suñu slogan la. dañ ci plateau. non pas di pas xeeb maanaam euh, dama ne ñun suñ demee ci plateau yi dañuy liggéey mhm. ñun on s'en ci. ku ñu xeeb ku ñu mais l' essentiel suñ demee ci palato bi ñu xam ku ma ne. Ah, parce que mën moom kenn déggoo ma de boo nu jaayee affaire ci biti ñu xaar la ci plateau bi rek boo ñëwee ñu te dara du ko faj déggoo ma de. tamit ak gis nga ko xaar bi ay yii ay ay cosaan ak yooyu. xaar leen lépp démb la ñu wax ak tey te incha allah day baax. bàjjani dañuy taasu wala. Euh, lépp la ñuy def dañuy way dañuy taasu dañuy taaxuraan ñun lépp lañuy def ci série bi ñun fu ñu woo rek ñu wuyu. alors maman. waaw. xamee nañ la série yi macha bu nice nga joué boo dugg tamit euh, am si loo ci joué lu am solo. waaw waaw noonu la noonu la comme li wax sànq rek ñun di faw ñoo ñuy liggéey liggéey rek ñoo xam ne dañuy liggéey rek fañ bokk tax ak kañ yot liggéey lañu sant liggéey la ñuy def dañuy liggéey. da ngeen jàng théâtre ba pare doogay dugg nag. ñu ngi jàng ba tey ñun dañuy jàng ba léegi boo ñëwee ak ko Pikine xam dañuy jàng ba tey ñun foofu dañuy liggéey ñun li suñu nee naa leen man jaay ñu beñe jaay ñu tàngal jaay ñu bonbon ñun aar rek. théâtre la ñuy dox moom la ñuy wax moom la ñuy waxtaane moo ñu tax a toog bii ñuy xoole bu dul woon tëdd nañu yàgg na mais théâtre moom moo ñu jaralu ne. mais chaque jour soo leen joué dañ koy apprécier dañ naan vraiment da ngeen di mel ni ki ngeen jur doom seen doom dëggante. Mhm. waaw noonu la. waaw noonu la ndax si liggéey bi ñu ko joxee def ca la ca war boo ci defee la ca war rek dañ ca bëgg di ko am ndax ñun loolu ñu jàngal te loolu la ñu yebee moo tax loolu la ñuy liggéeyee. yow tamit bàjjen. waaw maa cay bàjjen maa tag maa leen tagg ñoom naa leen fànn njëkk yaaram surtout surtout birima bi surtout may sa teen di jor surtout jéedi jéedi jor ndeela bi maa leen di saggee noonu ñoom naa leen faal faal yaaram faal damel borom 33 maam yi waaw maa leen tàggee noonu ñoom waa vëtu faa leen waaw fa toj waaw man faa laa sant damaa mën a tag sama bopp ah, waaw waaw man sa bopp doo juum waaye ana ñang ñang fan lañ koy bàyyi mm. ñang baalo dem ba xobilem borom kër yi àjjana yi ñun ku nu mayul àjjana ku ne doo dugg déggoo ma de macha allah <laughs> alors ñu dem si suñu troisième bi moom tamit xàmmee nañ ko ci série yi vautour mm-hmm. rek ñoom ma nga xam Euh, waa maa ngi leen di nuyu waa Sénégal euh, di wax ne euh, daanaka ñi ma àndal wax nañ donc ñun dañuy sant yàlla rek parce que dara am nga bokk ci loolu sant suñu borom la fait des pas loolu la doomu aadama bi di ñaan man nag damay wax ne art bi dañ ko jël opté ko muy métier mais am na yoo xam ne sax jarul di ci di ci débattre parce que nit ku nekk rek foo présenté wu rek boo waxee dinañ xam yow yaay kan on était juste venu pour le lancement de la série Vautour ak Events Pro on a de participer à la série Euh, dañ koy sante waat suñu borom et puis euh, joué ci euh, avant ak ak ak tey muy démb ak tey man bokkoon naa ci bàjjenu démb yi mais bokk naa tey ci yaay moo tax ma nekk ci yaay l'autre fii man sët laa ci waat amaat ci doom kon chance la ñu am ko di sant yàlla rek parce que liggéey boo ci nekkee jox ko li mu moom après moom moo lay dab di la jox li nga moom mais jarul defante jarul ŋaañ ñi jarul waxante jarul yenn yi nit ku nekk buñ nee action xam nañ li nga mën parce que li ñu wane fii tey cuune nekku fi mal euh, bien vrai que euh, ñi ñu ko sekkal event pro macha allah liggéey bi professionnel la ñuy def moo tax dañuy jël ay professionnel di liggéeyandoom ñu teg ci taabal ji lu professionnel kon dañ koy sant yàlla di wax rek ñaan yàlla nga xam ne euh, li ci biir moo dàq li ngeen gis tey yàlla nañ ko seetaanandoo ci jàmm yéen tam di leen wax bonne continuation yàlla na yàlla sàmm ñëpp macha allah. non amul problème man je suis yaay la comme nu ngeen ko waxee j'ai des filles kon maman laa boo ñëwee au niveau de Arcousse Bekine man maa yaayu xale yi fa nekk plus de 600 membre dama koy sant yàlla du sama ngóora peut-être xëy na sama dal ak sama wàcc ak sama yar kii elle fait bàjjan la may wax mareetu kon xam nga lépp sant yàlla la jarul def nii nit ki bàyyil yàlla def na nii bu jotee rek bu la defee nii nga toog doo wàcc yàlla na yàlla defal su maa ngi leen di xaar merci beaucoup ok